monsieur le préfet du département de Thiès maa ngi lay nuyu di la ziara bu baax nuyu également chef de service régional du sport di nuyu chef de service départemental du sport di nuyu directeur Seneps mi nga xam ne accueillir mais également di nuyu président de ligue yeeg mbokk sportif bu Thiès waa yëpp maa nuyu également suñu mbokk taskatu xibaar yi ak ñi nekk ci salle bi yëpp. may nuyu ñëpp ci turu président de la république ak premier ministre Amadou Ba di leen wax ni mbégte mu rëy lañu am ci ak accueillir leen tey ci ndaje bi nga xam ne dañ ko amoon ak bu Thiessois yi pour waxtaan ak ñoom ci li nga xam ni mooy suqali sport bi fii ci département bu Thiès may wax ni également bala may sori rek dama bëggoon a incliné wu mooy am xalaat ak ñaan ci suñu mbokk yi nga xam ni génn nañu àdduna ci accident bu metti bi nga xam ne moo am ci diwaanu kafri da nga xam ni nekk na tiis bu rëy bu dal ci Sénégal ñu ci jaale président de la République premier ministre Amadou Ba mais également tout le peuple sénégalais ak njaboot yi nga xam ni tiis bi dafa dal seen kaw ñuy ñaanal également ñi nga xam ne dañ ci am ay gaañu gaañu ñaanal leen suñu borom may leen wér mais également muy occasion ci man ma retrouver wu ak sportif bu Thiès yi pour wax leen nii mbégte mu rëy laa am ñëw tey ci Thiès dajeeg ñoom pour waxtaan ak ñoom ci li nga xam ni moom mooy xalaat bi ñu am pour lii mën a suqali sport bi fii ci région bi ak ci département bi. man nag su ma ñëwee Thiès di wax ak waa Thiès ci mbiru sport dama ciy am mbégte ndax acteurs yi nga xam ni ñoo ne ci salle bi yàlla suturaal na ma mën naa ni ñëpp ku nekk ci ñoom mën naa ni wóllëre nga xamee nga wala xarit nga ndax yàlla dogal na. pendant ñaar fukki at mën naa ni mille 2002 ci laa am jaxasoo ak waa Thiès ñi nga xam ne surtout ñoo ngànk sport bi te loolu suñu sama kilifa ci politique di président Idrissa Seck bi yàlla dogalee 2002 ñu fal ko comme maire Thiès dafa ma tegoon ci wetam mën naa ni boole ma ci kuréel yi nga xam ne ñoo ngànkoon sport bi même ci présidence la république ba kii ci Thiès kon defe naa ni ñaar fukki at yi nga xam ne ànd nañ ko

sama nomination war naa ko jagleel sportif bu Thiessois yi kon yéen yéen a ko moom ma leen koy delloo di leen ci sat leen ci gërëm ndax ànd bi rafet na rafet boo xam ni mën naa ni tey ñëpp mën nañ ci am suturlu mën nañ ci sant yàlla bu baax beneen bi mooy li nga xam ni xam ngeen ko mooy vision président la république ci développement wu sport mu boole ko ci PSE ci ponk bu njëkk bi bi nga xam ni mooy transformation structurelle de l'économie et croissance ci foofu la président la République dugal mbiru sport ndax jàpp na ni sport mën na nekk loo xam day suqali donc dëkk mais également day bokk ci li nga xam ni ci luy jàppale askan wi la ci wér-gu-yaram mais également ci mbiru suqaliku ba tax na kon vision boobu ci la ñuy sukkandiku pour wax ni li nga xam ne am nañ comme yéene fii ci région bi ci Thiès mooy ñu jàppale discipline yëpp ndax Thiès de tout temps dafa mas a jouer rôle bu am solo ci li nga xam développement sport fournir ay athlètes de haut niveau ci Sénégal football di athlétisme cyclisme mais également rawatina course fas nga xam ni li nga xam hippodrome course épique donc Sénégal te le Thiès la nekk. bi annoncé li nga euh, vision bi la muy tabax ay infrastructure de dernière génération yoo xam ni képp koo xam ne da ngay def sport ak noo ko bëggee pour am mën naan ay performance duñ ko mën a am ci vision boobu ci le président de la république sukkandiku pour tey tabaxal ñu li ñuy wax arène nationale nga xam ni bijou la boo xam ni ñi nga xam dañuy évoluer ci mbiru lutte xam nañ ni presque mën naa ne amul fenn ci Afrique beneen bi mooy Dakar Arena nga xam ni ñi nga xam ne dañuy basket xam nañ ni dañuy wax am na yeneen Dakar Arena ci Afrique mais ku dem Kigali comparé ko ak bi nekk Sénégal nga xam ne benn la ci Afrique kon boobu loolu dafay wane yéene bi nga xam ni ak ambition bi nga xam ne président la am na ko ci sportu Sénégal nga jóge fa nga ñëw stade maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio ñoom ñu jóge Qatar xam nañu ni stade Qatar yi ak stade maître Abdoulaye Wade mën nañ leen comparé am na sax stade yoo xam ni li pré stade président Abdoulaye Wade am amul Qatar. kon loolu nañ ko sant suñu borom vision bu yaatu lay wane bi nga xam ne président de la république am na ko pour accompagner sportu Sénégal yóbbu ko ci standard yi gën a kawe ci àdduna bi. ba tax na kon waa Thiès également nañu xam ni duñu leen bàyyi ginnaaw ndax nee naa stade de Dior fa la équipe nationale bu Sénégal amee qualification jóge fi dem jëli coupe d'Afrique kon loolu rek war na tax lépp loo xam ne dañ koy def ci mbiru sport ci niveau national ñu gën ci bàyyi xel bu baax a baax Thiès ndax Thiès nag jig na Sénégal Thiès jig na équipe nationale. kon waa Thiès ngeen xam ni dinañu accompagner Thiès dinañ accompagner stade de Ladjo sur tribune yi dinañ ko renforcer def ko mën naa ne ay tribune circulaire ba nga xam ne tribune yi day wër stade bi ñu yokk ko ndax jàpp nañu ni Thiès war na bokk ci stade yi nga xam ni suñuy def suñu euh, candidature.

maintenant les infrastructures pour mën les au plus haut niveau. non aussi là, comme on a waxee maintenant, Caroline ci est ci Caroline Faye ci mais également ci qui est ko mais également l'hippodrome euh, euh, hippodrome Ndiaw Makoddu dinañ leen accompagner même hippodrome national bi nga xam ne dañ ko war a tabax yaakaar nañ ni lañ koy tabax te loolu projet bu 32 milliards c'est pour dire simplement li nga xam ne moo jëm ci biir infrastructure ngeen dalal seen xel waa Thiès xam ni. président de la République bàyyi na leen xel premier ministre bàyyi na leen xel mais également man mi ñu dégg département bi te ma lu ma am Thiès la mais également da ngeen xam ni incha allahu bi ñëpp laa ko a nekkal mais fu ma fa nekkee it sama xel yëpp dina nekk ci Thiès ba tax na kon Thiès na seen xel dal kenn du leen fàtte ci ginnaaw ba tax na kon loolu rek laa bëggoon annoncé ngeen xam ni daal ndaje bi ndaje waxtaan la ci li nga xam ni mooy feuille de mooy action yi ñu war a teg. pour gën a jàppale sport Thiessois bi pour que ni fi Thiès nekkoon démb mu mën ko retrouver loolu moo doon objet ndaje bi may sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah